What up, guys? What up, guys? What's up, everybody? Summer guy. <laughs> yeah, before going further, allow me to introduce myself again. I go by the name of Malachon, and I'm from Senegal, West Africa. Rio the Kumam Kumbalamba, Summer Town. <laughs> Yeah, the Kumai Pab J, Ibrahim Ndao. Mustafa Mane dagu from Belgium, Abakar Diallo from Russia, his elder Ismail Diallo. Di ko may amul dam jaay sama chéri Kumba Mané ñëmé sama chaque samedi mu def coiffure Kumba nante Kaolack. di ko may euh, ba Omar Fall ñaaw si gim fële ca Kébé mu daay yéena am di ko may gars bëggee ma la TV yëpp ak ñi may bëggee te xaw ma leen yéen ñëpp di ko may waa diaspora bi sama gars leen bëgg yàlla may ay milliards foofu noonu ngeen ñëw investir Sénégal xam naa lu fa waay am fi la koy ngeen Sénégal trop te balaa yàlla na Macky Sall wàcc sama gars yi noonu laa naan saraax ñëw wax ci avion présidentiel bi bi avion bi ñu jënd euh, Sénégalais di yuuxu <laughs> muy mu leen di bett waaye xam nga euh, ah, Macky Sall jënd avion muy bett Sénégalais yi dafa ñun la Balla Gaye daan na si deux secondes mu lay mu lay mu lay bett hmm? mu lay bett amul dara loola ci war a bett parce que tey jii parce que tey jii koo xam ne nee na la moom euh, mandat de euh, cinq ans laay def ah mandat de cinq ans laay def yeggali sept ans muy benn wax waxet ñëwaat ne la deux mandats laay def dama bëgg troisième mandat ne du ci wax parce que su ma si waxee lii ak lii ak lii ah, koo xam ne wër na région yëpp lay toutes les régions du Sénégal

tey ji maanaam boo nekkee si koñ nga nekkee si koñ yàlla yàlla mën la ah nga mën a togg ginaar chaque jour mais su fekkee da nga dëkk ak ay baadoola ba yow tey ji boo toggee ginaar gi di xeeñ baadoola yi te ji yàgg nit ñi rek a yem loolu moral la mais lu ko si loolu yàlla jox rek da nga koy def maanaam yow tey ji c'est il est inconcevable ngay takk ay montre yoo xam tey jii ay vingt huit millions d'euros tey ñi ñi la tax nga falu ñi la falu ba nga mën a jënd loolu noonu ñoom tey jii montre montre quinze mille sax mënuñu koo jënd donc moom bu yeneen nit nite la ñu wax Macky Sall bu nite woon tey jii mënoon na génn takk benn Casio bu quinze mille wala mu Casio mu takk benn montre sept mille là il sort grand Macky tey jii bu ñëwoon ne avion bi lay réfectionné Macky Sall jëlul avion bi de Macky léegi day jël avion kii lay jël moo gars day jël première classe ànd ak Modou yi voyagé ils sont grands politique yooyu la la ko gaa yi wër jox tey ji ñu gis beneen Sankara bu ñëw wala gis beneen waajoxam tey ji il pense à son peuple ba day marqué ay points loolu sax mën na ko jàppale moom troisième mandat yooyu noonu parce que troisième mandat ay maytu xaalis sëriñ mayu la mais il faut montrer au peuple travailler pour vous loolu moo mënoon may tey ji Macky Sall euh, troisième mandat mais pas arrogance pas gatsa gatsa ay deuxième vague bi ñëw pare nañu waxuma la deuxième de bii di ñëw doon vague tsunami lay doon parce que vague sax dañ day vague de dix quinze mètres mais tsunami lay doon mbënd fekk la paleg Mermoz lekkala lekkala lekk say doom parce que les sénégalais en ont ras-le-bol les sénégalais en yow li nga bëgg tey ji mooy moom tey ji man je tout va bien au Sénégal maanaam jënd avion bu cent milliards wala soixante milliards ah, defar stade à à à de milliards ñëw woon ne gars yi ne waa Macron waa tu vois c'est un pays émergent tu vois waaw ñun on a Macron bi ngay woon Sénégal am na xaalis hmm, moo la gën a xam ne Sénégal am na xaalis le blanc les Français ils sont dix mille fois plus conscients que ñun ñun dañu am xaalis mais Macron conscient ne Sénégal am na xaalis moo tax mu ñëw tey di leen manipuler pour lekk ko lii France def Afrique yëpp fi def soo amul du ko fi def. li tubaab yi daj biir Afrique xam ne africain yi ñoo ñu ëppale richesse ñoo ñu ñoo loolu tax fii tey jii jël ay ñu mel ni Macky Sall di leen pas besoin ngay takk ay montre wala ay stade olympique wala tey ji def ay cent milliards ne blanc bi voilà ñun on est on est émergent loolu dafa mel ni rek benn borom kër bu tabax kër def ci marbre def ci lépp te boo ñëwee kër ga yëngal la ñuy lekkee tu yëngal lañuy coob loolu Macky Sall def da wane à la phase mondiale nii ah, eh, soxla nañ ko gaa mais amul njëriñ c'est pas du heure bi ko soxla nga def ko pour ne tubaab bi voilà ñu ngi émergence parce que émergence ci ay bâtiment nga ko teg ak sëpp Dakar tey ji lampay di tàkk loolu d'émergence nit ñi lekk ñu naanuñu ñu ngi bëgg dee les wax ci affaire avion avion bële dafa amoon ay risques yi mooy li ma la Cheikh Yérim Seck ku yaakaar mu wax dara lu ñaaw mooy Paco Jackson wax si kii lu ñaaw Paco Jackson wax El Hadj lu ñaaw wala tey ji Pawlish Mbaye wax wax lu ñaaw ku laal bët fu ko ne xoole na loolu priorité mais wasin ci ay yi di dee xanaa loolu du priorité suñu tali bon yi nga naan xanaa du priorité élèves yi jàng amuñu fi leen orienté xanaa du priorité université bii fees dal mel ni mbalatu euh, donc bàyyi leen si ngeen di affaire naa fexe ngeen di def quoi ah sénégalais yi sonn lekkatuñu ñu benn repas par jour chaque jour ceeb mooy démarré ceeb bu ci bu doon football la ceeb mooy misi chaque jour mooy démarré tabaski korite ngay gis yàpp ah nit ñi xiif sonn añee yëngal reeree yëngal jigéen ñi di mbaraan góor ñi teg ay dóor ay dil ñu nekk ay fecckat élèves yi ñu leen gëm a tey ji ay ay castingu pot de marichaux acteur moo star mania bi tey moo mën nga teg nekk ci dëkk boo xam ne tey ji nit ñi bu ñu boo nekkee ci àll bi abri provisoire mbëtt mën la fekk bar jiit matt la booy nekk foofu noonu defar loo ay ah noonu ah ay non c'est Sénégal su la a dal fu mu ne nii parce que moo tax ñooñu ñëw foofu noonu ñooñu fa de leur propre de dañ fa ñëw parce que benn t-shirt dañ leen di jox ak 5000 francs ñu sol benn t-shirt dañ koy maye wala boo lëgee moom moom ñu kullaaj ko booy réew dañuy jël bët Macky Sall Macky Sall yi ñu ne nga jox ko 5000 yéeg 5000 doo sa bàyyi boo wàññi ko da nga ne ñooñu mooy Sénégal Koungheul ñu lay sànni xeer waaw Koungheul ñoo yéeg xool foofu ngay romb ci Koungheul man de man j'avais l'impression que film Lat Dior yu yàgg yi la ñuy tourné xool Koungheul foofu nu mel avec ah, non non non foofu mi ngi non kenn xamul non non non vraiment c'est du n'importe quoi yërëm leen Sénégalais yi yërëm leen Sénégalais yi am leen ful am am yërëm leen population bi les gens ont tellement sont tellement fatigués dans ce pays sont tellement fatigués dans ce pays lekku ñu naanuñu amuñu liggéey amuñu benn espoir pendant ce temps suñu président bi moom mooy loolu quoi ay avion la indi damaa ne diggaa ñoo am na sax benn bateau bu mu jënd fii bateau bi da ko jënd bateau bu bees tax tu vois mais sañu ko bato bu dëkk bi jënd def ci Fatick xaw ma la noonu ma rey man suma ne day mel ni rek parfois tamit c'est à l'image du moom laay tàggatoo c'est à l'image du du sénégalais le en général xamul sens su priorité da ngay gis ko wala iPhone X jëndee ko kii 600000 am par di yónnee ay rappel wala amul crédit gis kuy dem màkk foosam di ball gis koo xam ne tey jii maanaam mi ngi takk ay cheveux cheveux cent cinquante mille man laa pajaas si lay tëdd déggoo ma de gis ko xam tey jënd ay Balenciaga quarante cinq mille ah boo demee néegam daa fissure maanaam amuñu priorité ñun tout temps li mooy lii loolu loolay sénégalais nag te loolu xam naa mooy image bi Macky Sall image kiiwu sénégalais boobu boo ko dugg sénégalais boobu tout temps rek day wane apparemment <laughs>